wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat ndax da nga koo gëmul wala daf laa jubluwut wala da nga koy fàtte liggéey bi fàttaliku leen ko ndax da nga koo tàyyi ndax dala koo jaralul wala jot gi daa bëriwut ay waay kañ la ñaari millions ngi murid yi di mat aw ñaar téeméer mille francs rek par weer yàlla gërëm la yonent bi gërëm la sa àdduna defaru sa àllaaxira defaru ana muriti sëñ Tuubaa yi seeni maam jaayante woon ba tey mënuñoo ñëw ci tubaa ci kanam 1000 francs rek par weer bul ko waaj nu ngeen bëgg Touba mel ni des na ci yéen weer wu jot kenn ku ci nekk jaayanteeg Serigne Touba ñaar téeméer yow mi am Orange Money defal cent dièse 144 dièse 621 dièse code bi 20 90 95 sa addiya mën a tàbbi ci biir Touba ca kanam misras mi abi jaayi xayri ma nabaat